démarche bi nag du démarche politique bataaxal bi wax nañ ko dañoo nekk doomi Touba ak ñu fal ñu ci yoon ñu war a taxawal askan wi lépp luy seen àq ak seen yeleef bu jógee ñu topp ko ba mu àgg ci ñoom naam ci ñun am na ci ñu ci fab seen alal ju bëri def ko ci tàmbali ko maire bi it def na alal ju bëri defe naa bi ma xamee commune Touba ak léegi première fois ci histoire commune bi ñu yëkkati alal ju toll noonu lu mat deux cent millions jënde ko ay lekk ak i ñam pour jàppale ko askani muy loo xam ne war nañ koo saluer sant ci sëñ Muntaxa Mbàkke xalif général de Mourides gannaaw bi mu fabee loxoom def ko ci jiba yëkkati deux cent millions jàppale ko Sénégal sëñ Abdou Lahad Ka maire de Touba jël xalaat boobu moo conseil yi yëkkati ceeb boobu mu àndak ak sukkër ànd ak diw ñu war koo jëme ci nit ñi pour jàppale leen ko euh, kon tey dañu jàpp ne li nu gënoon jaaxal mooy registre unique bi nga xam ne bi mooy bourse familiale xam ngeen ne liste boobu am nañu ci bind seeni tur te dëkkuñu Touba nekkuñu fi am nañu faatu am na ñoo xam ne ay kilifa lañu sax mais dañ cee bind seen bopp seeni jabar loolu nag ñu ni ñun député yi du ñu mas a taxaw di nangu ñooñu ñu fabaat ceeb bi jox leen ko kooku ñun dañ ciy opposé wu ndax bu ñu leen joxee ceeb bi presque xaaju ceeb bi day jeex kon ñi amul ci bourse bi te yelloo ko xam ne fii plus de un million de personne dëkk nañ fi li fi nekk ci ménage mënu bu ñu joxoon ñëpp du ñu xaajal ñu fab ñooñu ñuy jox xaalis ba pare fabaat leen ko ñeneen ñi nga xam ne dañoo toog ak i way laago ak i chauffeur ak i boroomi sare ak ñoo xam ne daara lañ yor ñu sànni leen foofu loolu moo waral mbir mi biñ ci jokkeeg ministre bi mu ne nañ ci waxtaan ak préfet préfet ñu waroon dem fekk ko bureau mais comme maire bi mooy dëkk bi nga xam ne bii moo gën a rëy ci département bi mooy Touba mu ñaan ñu ñu daje fii ñu élargir ko ci waa HCCT ak conseil économique social ak adjoint maire yi pour ñu mën a waxtaanee mbir mi li ci am solo mooy waxtaan wi préfet jiite na ko ci xel jiite na ko ci dal jiite na ko ci bëgg a mission moo tax mu déglu nit ñëpp ñu proposé ko nag lu am solo gannaaw maire bi dafa fab lu toll noonu di ko séddale ni euh, kit gi mi ñuy def ñoom cinquante kilos ceeb lay doon euh, juróomi litre diw ak juróomi kilo sukkër li état jël moom dix la te ñu xam ne bu ñu jëlee dix cible yi ñu tuuti ñooy am coow li ni gër ñu ni li nga xam ne ñi ñu éliir fii muy conseil municipal juboo nañ ci ba war koo def bu ñu tàmbalee ñoom joxe noonu bu état indee nañ ko corriger sant état ba pare ni ko ñun juboo nañu ci wàññi ndax état mooy maye te ñëpp ko yelloo fii pour mu gën a yaatu xam ne bu doon fukk la ñuy jox ñaar fukk la ñuy jox bu boobaa ndamu état la loolu préfet nee na dana ko jàllale wax ko ay kilifaam mais it Abdoulaat Ka dañ koo sas mu yëgal ko sëñ Sidi mi nga xam ne mooy ji jëwriñu sëñ Muntaxa pour ni ko ñun ñii ay dongoom dëkk ci dëkk bi noonu la ñu bëgg ñu séddalee ko ndax sëñ Touba noonu lay séddalee même bu doon ñooñu état wax ñoo ko yelloo rek lekk wacc sa morom warul ndax dañ leen a bind ci u kayit rek mais am na kër gu nekk seen wet gu ñu bindul te tanewuñ leen kon loolu mooy waxtaan wi juboo nañ ci commission yi ñu war a def dana wàcc ci quartier yi dana dem ci village yi liñ ci proposé yi dañ ni ceeb bi bu demee ci village yi muy village périphérique gi Touba nañ ko wàccee ca penc ma ñëpp fekkee ba pare commission bi koy séddale du doon chef de village rek dem mën naa nekk président mais dafa war a mat lu bon bon juróom-ñaari nit yoo xam nañ ni seen probité morale ñu jub lañu muy imam muy jeune association jeune bu dee handicapé nekk na ca dëkk ba ñu séddale ko. defe nañ ne nag dëkk yi wër Touba du am jafe-jafe mais biir Touba la ñuy alertu li ci des ñu wax ko mooy ñun daañ ci teg sunu bët bu nu gisee benn chef de village wala kuñ jox ceeb bi. nga jaay ci saakub ceeb wala nga génnee ko ñun jury d'honneur la ñuy wut porter la plainte toppante koog yow ba fa mbaxana di benn ceeb bi du ku koy bu ñuy bàyyi kenn di ko lekk ceeb bi na dem ci ñi nga xam ne vrai destinataire ndax ñun dañoo fab suñu xaalis di ko jox nit ñi kon ku xaalis booy jox li état joxe na ko fi wàcc ngel boo bëggee am ak ñun jàmm loolu daal moo ñu fi bay ñun ñëpp ñoo wax benn kàddu te loolu la ñu gëm loolu na ngeen ko jàng ci bourse familiale yi non duñ ci d'accord loolu bourse familiale yi dañoo waxante ak ministre bi ñoom xam nañ ne am nay erreur ci Touba nañ ko corriger boobu beneen combat la mais ñun suñu rôlu député danañ ko def danañ fexe ba ñiñ ci bind te waruñu cee nekk moom ñu dindi leen ñi ci war a nekk nekk ci bu dee am na marge bu fi des ñu jox ko ñeneen ñoo xam ne yelloo nañ ko ndax Touba ñu bëri yelloo nañ ko ñun ñëpp li ñu denc ku ci denc dara da nga koo war a génne boole naa ci sama xariti commerçant yi nañu génnee ci li ñu yor même ñu génneewul loo xam dañ koy maye nañ génnee asaka génnee ko ci waxtu wi